الأنبياء المرسلين وعلى yow mi nga xam ne yaa fi nekk toogaayu sëriñ bi nar a jël kàddu itam ci turu sëriñ bi ñu lay nuyu di la yóbbante sunu nuyoo sunu ziar ak sunu ndokkeel ci Cheikh mu Mountakha moom mi nga xam ne moo joxoon ñaari mbooloo yii muy daayira bu rayaxiin ak daayiratu muqaddamatul xidma ñu taxawal ko gàmm gi fii ci jumaa ji mu taxaw ci taxawin bu rafet la ko ci war lépp itam mu def ko kon ñu lay teg sunu ziyaar ak sunu cant ci sa loxo ngir nga tegal ci loxoom di jàll itam di sant mboolem mbokki taalibe yi nga xam ni jàpp nañ ci jàppin bu rafet te xëy na duñu bëgg ku tudd seen tur wante nag ñu xam ne yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi tax ñu ko def moom xam nañu ko nuñ ko nuñ ko seqal xam nañ ko ñoom xam nañ ne ñoom lañuy wax xam nañ ne gàmmu gi ren ci nawet la doon nañ bàyyi xel taw bi ba tax na ñu amoon ci xalaat bi ñu ci waxee ak lenn ay bokk ñu buñ ci jëlee biñ ci waxee ak lenn ay bokk ñu taxaw ci taxawin bu rafet jël tànt bi ci millions yu bari seen poos indi ko ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ak yeneen bokk yoo xam ne taxaw nañ ci yeneen wet yoo xam ne mënut a ñàkk taxawin bu rafet kon ñu ngi sant ñoo ñëpp ci turu ñaari mbooloo yooyu nga xam ne ñoom la sëriñ bi santoon liggéey bi sant mboolem kon ñi ko ñi ko sëñ bi muy daayira yooyu le taxaw nañ ci seen kem ba kàttan ngir mu tege ci ay yoon ngir mu sell ngir mu dëppoo ak ñi ko sëñ bi bëggee fa tabaarakallaahu ahsanu xaaliqin yaakaar naa ne képp fi ñëw xam nga ne dëppoo na ak ni ko sëriñ bi bëggee kon li des rek mooy yàlla na ko yàlla nangu te fay ñëpp dafal ñëpp jàmm def ko ci réew mi def ko ci réewu jullit yépp su borom teggi ràgg yëpp te faj aju yëpp ndax guddi gi lépp lu ñu ko saf rek attan na ko ndax am nañ ci yaakaar ci ne suñu kem kàttan def nañ ko ci dundal ko nii ko sëriñ bi bëggee kon mën nañu rafet ci njort lépp duñ ci fas wala duñ yéene ko ci suñu borom mën nañu ko defal kon ñu ngi ciy fasal jullit ñëpp ñu am jàmm jullit yëpp mucc tey ak ëllëg ndax dëgg yàlla ñu ngi beral seen tam ñi nga xam ne yoroon xaside yi bu baax muy kuréel yi ñu xam ne yoroon jës bu ak mooy bi muy sunu njaboot waaye ni mu ko waxee sunu mbokk yi. Touba Ngoy yi nga xam ne ñoo yoroon muqadamaat bi bi nga xam ne moo ci gën a diis ñu ngi leen di beral cant bu baax di leen bàyyi xel na ma ko waxoon sëriñ bi rek eh, seen taxawaay maa ngi koy fàttali seen taxawaay ak taxawaay daayira bi yépp eh, ni ma eh, baaxoo waxee nag sëriñ bi naa la yóbbante naa la jotal yóbbante taalibe ci sëriñ bi taalibe yi nee nañu dañoo bëgg ñépp wér ndax ab murit day yëngu day liggéey loolu ko wér moo ko man ñu ñaan mu fàggal nu kon ñëpp wér ñu ñaan te fàggal nu ñëpp yor ab murid day war a joxe te ko amul loo joxe doo joxe kon ne sëñ bi nañ fàggal murid yëpp nañu yor waaye muur yëpp itam nañu yaru ndax ab yar mooy li ñu fi indi sëñ bi waxoon ne ab yar mooy li fi ne ku fi jëlee bàyyi woo fi dara ku fi bàyyi jële woo fi dara kon nañu fàggal nu wér te yor te yor ñu ngi koy yóbbante nga waxal ko sëñ bi ñu ko ne ko fàggal taalibe kon loolu mooy kàddu yi kon jox ma nga jot li kàddu kàddu yi sëñ bi ñu ngi baalu ak ñëpp di sant ñëpp di ñëpp nag bàyyi wu ñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati kàddu ci turu Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di sàkku nag nun ñépp nu ànd ci ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu ci toolub lislaam bii mu def lépp ba mu yegg te nu ànd ko ak moom loolu ñu ngi ñaan ñun ñi fi ñëpp kenn ku nekk teewlu ci barkeb guddi gu tedd gii ci barkeb barab bu tedd bii ci barkeb kii ci wet sunu wet di soppe bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fanaane koo liggéeyal ba agsi fii kenn ku nekk ci nun na teewlu ci xolam ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg fi te ànd di yëkkati sunu kàddu nag ci ndigalam jëme ko ci mboolem bokki taalibe yi ak mboolem bokki jullit yi di ko teg ci loxob sëriñ Afiya Buso al mu jottali ko ci mboolem jullit yi ci mboolem taalibe yi waaye jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo amoon ndigalul taxawu gudd gi mooy daairatu rawdu rayahin ak daairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey lépp lu aji ci jumaa ji barab yu tedd yi ci dëkk bi muy ndigal loo xam ne sëriñ bi daf koo fonk lool di ko fedd li ndax cheikhuna alxadim radiallahu anhu ku ne xam na ne borom guddi gi rekk la bëgg mooy ab soppeem mooy ab doktooram mooy wéttalam mooy léppam xasida yi nga xam ne ñu ngi ko fi doon jàng kenn ku nekk ci nun bis bu set nga jàng ko waaye bi ñu toogee dafa mel ne tey lañ koy sog a jàng buñ ko teewloo mu doon loo xam ne tagg na ci sallallahu alayhi wa sallam taggin woo xam ne lu nu ragal a ragal a wax danañ ne keneen lott na ci ku moom jox na ko ci cër boo xam ne feeñal ci moom ak cofeel goo xam ne feeñal ci ñoom mbëggeel goo xam ne lu nu ragal ragal ñemee wax ne kon keneen lott na ci ku moom kon nag bu nu ko fanaanee ba waxtu wii te moo waxoon ne taadimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati fa man yuadim mawlida xayral baraya ahmada fa man taa man hayya a yooyu yëpp dégg nañ ko ci xasida yi ñu fi doon jàng te alhamdulilahi rabbil alamin guddi gi noonu yi lañ ko defe kenn toggul loxo yi kese kenn ku nekk rek yaa nga ca la nga war a nekk kon gëm nañ ne li ñu fi def lépp sunu borom nangu na ko ndax fii nu ko defee ak defin wi nu ko def Cheikh Mouhamadul Mountakha nag wax ne mi ngi ko ànd ak nun nam ko daan defe xëy na noo ko noo koy sakkanal yërëm ko ci coono bi ak tey jii guddi gi ni mel ak taw bi nu dogal ko ngànt waaye nee na mi ngi ànd ak nun xolam sedd na guy xolam sedd na guy nee na jëf ji itam na mu daan mel rek la mel kon na sax rek noonu mu wax rek nan ko taw ba mu laal suuf bu nee nan ko taw nag liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi la wax lii nu fi sëriñ bi bàyyil sëriñ bi nee na nañ ko tànn taw bu mu laal suuf waaye bu ci kenn xeeb boppam kenn ku nekk na jàpp ne loxooma war a gën a jàpp ci taw gi fam ma ne rek mu jëm kaw te tam ba mu ko waxee daf ne nañ ko taw ba àjjana kon nag mi ngi fedd li loola ci guddi gi di sant mbooloo mi yépp di leen gërëm di leen xamal ne xolom sedd na te nun bu xolam seddee rek sunu aajo faju ndax mooy sëriñ Tuubaa ci noonu bëgguk sëriñ bi rek lañuy ñuy dàkk sëriñ bi itam sallallahu alayhi wa muy defoon muy léppam xoolutoon leneen bëggutoon leneen royutoon keneen kudu sallallahu alayhi wa sallam kon nag noonu nañ def noonee mu defoon sallallahu alayhi wa sallam nañ ko def sëriñ bi buñ ko defee rek sunu lépp dana dana dana yàgg sunu lépp dana baax ndax moom léppam yàgg na te ko dugg ci koo xam ne yàgg na jaar ci yoon woo xam ne yàgg na boo ko wàccul da nga da nga yegg fa nga jëm te sëriñ bi sunu borom nangul na ko léppam léppam nangu na léppam yegg na ci borom bi subhaanahu wa taala jaar ci sallallahu alayhi wa sallam kon nag nun itam nan doolee feddali sunu laxasaay fas yéene rek xeñtu sëriñ bi buñ xool lenn buñ bëgg lenn buñ gëstu lenn bu nu dara mën a fëkk nañ ne dànn sëriñ bi rek nañ ne dànn sëriñ bi rek te xam ne buñ ko defee danañ texe àdduna danañ texe àllaaxira di ñaanaat di ñaanaat Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg fi te wér ndax moom kat day dolli pësteef saa boo ko gisee sa pësteef dolli ko saa boo déggee kàddoom sa sa sa sa sa sa pësteef dolli ko ndax moo wooteel boppam wax na nañ ko jottalil kàddu yii mbooloo mi wax na mi ngi ci biir mbooloo mi mi ngi ko ànd ak noonu xolam sedd na guy yëg na liggéey bi gis na ko kon nag noonu xam nañ su sunu aju fa noonu ndax mooy Serigne Touba ci noonu kon ku fanaanee liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhuna alxadim la wax ne la nangu naa liggéey booba alhamdulilahi rabbil alamin rek la ñuy wax kon ñaan yàgg ko teewe yu bari lool te ànd ak jàmm nu ànd ñaan xew-xew yu tegaloo yii fi am ci jamono yii ñu ñaan mu gëj fi ku ne xam na ne lu matagut ayu bis Serigne Abdourahmane Mbacké ci Daarul Muxti ku ne xam taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci yoonu murit waaye tey jii ci guddi gi rek nu wax nu Serigne lu Mbacké jumaada ci léegi bi ñu toggee fi jotaay bi la ñu ko wax ak ya jiitu woon bu buñ ko dee lim day bari kon nañ leen ñaanal sunu borom wane leen ak Cheikhul Khadim sunu borom yërëm leen jéggal leen xare leen àjjana waaye ñu ñaan nag loolu gëj fi lool yàlla na fi géej mënta ñàkk nag ndax moom a dëkk waaye yàlla na fi géej kon jëpp aajo ju fi waaye indi woon wala yàlla na ko yàlla faj tawat ju fi nit indi woon yàlla na ko yàlla saafara lépp lu nit doon mébét ci xolam lu woyof la lu tuuti la ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla def ci barkeb cheikhul xadim mii ak jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi